sonko ragal du ko bëgg naa fekk du ko bëgg ay gën saa du 2024 kuñ fi joxoon lu askan bi mom ta jaarul fi mu wara jaar bo fa tabaxoon gratte ciel tamit dañ koy nangu dama bëgg mu leer nañ nañu dégg bu baax kuñ fi jox ci ay njuj njaaj lo ne jaarul fi mu wara jaar ta askanu senegal mom ko ak loo fa munti investir buñu jëlé jëlee réew mi dinañ ko delo ci ci askanu senegal parce que tapal gi dafa wara jeex J'ai kontaanee jox cër mbokk aduna, j'ai kontaanee jox cër internet c'est le bon TV konaa mbokum de ci chaîne chaîne la chaîne de la vérité ci sen chronique comme ni koy défé sa ci actualité mais bala noo sori dañuy wax bak bi dolé jën ndox la dolé saxar ray la mais site internet chaîne YouTube abonnement la aimer commentaire et partager maa ngi lay wax nak ne la na nga na nga

commentaire c'est une idée mo c'est très important waye euh, ko am ñaari junni yoo may mayal ku la neex mais soo bëggee dégg-dégg jàppal c'est le bon TV di nuyu mon ami mon frère Cheikh Ahmadou Bamba Mboup borom global excellence groupe fële ca Parcelles Assainies unité 22 villa numéro 244 borom institut au métier de l' économie RNB sécurité ndindi service lépp lu ngeen soxla ci wàllu sécurité ak euh, formation bu ngeen demee ci moom rek dina leen euh, defal ay service yaa nga fa yu am am solo doomu ndey Pape Modou Fall borom Diourbel tey nag gars yi lu ñu bëgg a waxtaanee mooy actualité comme d'habitude euh, gis nañu dégg nañu match Sénégal bi di félicité lion yi encore une fois waaye di félicité patriotes yi nga xam ni tey euh, ñu ngi doon sonkoriser stade bi nga xam ni moom mooy fële ca France euh, am mbégte bu baax di leen wax ni nañ gën a taxaw gën a takku le combat continue waaw te incha allahu rabbi dañuy am ndam ci combat bi ñu nekk di wax ni aussi ñu gën a amaat gëm-gëm gën a amaat taxawaay ndax li ci des te incha allahu rabbi ko waxoon nañu ko ginnaaw yàlla ñun peuple sénégalais rek ñoo mën a tax moom du bokk kon ñun peuple bi suñu d'accordee injustice biñ koy teg d'accord ko moom amu ci problème ndax moom nekk président ak nekk euh, planton la yemale te wan nañu bëggam ci Sénégal war nañu li ko Sénégal jaral kon ñun peuple bi ñoo war a taxaw force taxaw déterminé wu ba candidature am taxaw mu jiite Sénégal incha allahu rabbi léegi nag ki nga xam ni mooy toog naan man sama carte laa yor sénégalais bii toog di wax loolu tey moom laa bëgg a waxal sénégalais bi toog naan man sama carte laa damay xaar bis ba jot ma voté coow ak xuloo baaxul am na benn rapport sax bu ko waxoon du ma sànni xeer ma du ma lakk kër damay xaar ba joxoon ma daal di sànni suma carte defe naa kaanabaas la du ma sànni xeer ma du ma lakk kër coow damay xaar mu joxoon ma daal di sànni sama carte donc du coup Canabasse loolu mu doon wax compatible tul ci jamono bii te bëri na ba tey ñi taxaw naan am position boobu naan man benn politicien jaraluma coow ak xuloo nañ bàyyi ba élection yu jot nga voteel ku la neex ci nguuru Macky Sall nag loolu dañ la ko dànk dañ la ko gàntal dans un état normal noonu citoyen bi sax war warta taxawee noonu ndax citoyen bi war na saytu ñu mu dénk nguuroom parce que élection cinq ba cinq lay am wala sept ans ba sept ans kon doone man su ma xasee ba fal nit dama koy seetaan même bu defee loo xam ne jaaruwul dama koy seetaan di ko seetaan ba élection ñëwaat ci diggante bi nga xam ne élection mu ngi ñëwaat lépp lu mu ci def dama ciy noppi yow xamuloo nan ngay saytoo sama réew pëppul bu yeewu day saytu ni mu jébban nguuram loolu ça n'a rien à ak politique kon yow mi doon taxaw am philosophie boobu Macky Sall ci nguur Macky Sall su fekkee moom nga am ba tey yow ka nga faral ak ka nga bëgg a voter du egg élection ba nga koy voter kon dañuy taxaw xeex fi mu toll nii nguuru Macky Sall képp ku bëgg a bokk élection da ngay xeex waaw dangay xeex ñi nga àndal dañuy taxaw xeex ndax ci biir fu Macky Sall ñun ci lañuy tànn Macky Sall mooy tànn ñiy bokk mooy filtre ñiy bokk nga ñëw tànnaat ci biir tànnee tànneefam kon soo toogee naan damay xaar élection ñëw déedéet nguuru Macky Sall boo xaaree élection ñëw ngay doog a réagir élection bu ñëwee déedéet kan nga bëgg buñ ko voteelul nag Yen ñi taxaw naan non waaw yàlla moo xam kuy jot réew xam nga sonko bu waree bokk dina bokk war na bokk te ñoo ngi ne ko doo bokk su waree bokk dina bokk su waree jiite réew mi kenn mënu ci dara waaye bu toogoon këram du jiite réew mi mu ngi mel ni nga naan man euh, su waree am dépense kan mooy xëy naan sa kër su ma waree am dépense dama am dépense tëdd sa kër da ngay xëy wuti dépense jaar ci yoon bi lay tax am dépense mooy tax nga am dépense nguuru Macky nag da ngay jaar ci yoon bi la war a tax bokk xeex ba nga xam ne mooy tax nga bokk waaye boo toogee rek naan sénégalais am naa trente cinq ans euh, sama casier judiciaire vierge na am naa nationalité sénégalais lépp lu constitution bi wax euh, li tax critères yi tax nga bokk matale nga ko rek damay taag toog dinaa bokk déedéet da ngay nekk sénégalais am trente cinq ans am caution am parrainage am lépp Macky Sall ne la doo bokk kon képp ku taxaw am esprit boobu esprit boobu dafa passé mu ngi mel ni ngay sol dërëm yaay wala ngay sel choix mooy tissu yu xeewi yooyu wala ngay fecc raas waaw xam nga raas xeewi na caxu gun xeewi na waaw yooyu xalaat na nag noonu la xeewee ci nguuru Macky Sall nguuru Macky Sall da ngay boole am sa carte waaye boole kook nag focus xeex pour sa candidat dem élection sinon mën ngaa bëgg jot sa carte sax doo ci jot ndax élection 2019 am na ñoo xam ne am nañ seen carte électeur Macky Sall bañ leen koo jox ndax bañ ñu voté parce que xam na ne duñ ko voteel Aly Ngouille Ndiaye taxaw ne Aly Ngouille Ndiaye mii di taxaw di woote rupture man ay ree damaa jàpp taxaw ñëpp di ko dégg mu ne ñii bu nar a moom ñoom dinañ jot seen carte électeur te moo nekkoon ministre de l' intérieur à cette époque 2019 yàggagul tey mu taxaw fii naan ñu rupture rek ay nu mu tudd sax man daal damaa jommi bun Abdallah jonn fële fële mais ñooñu moom temps bi ñu nekk maanaam ñoom li ñu nekk di xalaat nit ñi dañ leen raw quoi le peuple est tellement en avance. par rapport ak ñoom ni ñuy xalaatee donc ma amaat beneen gis-gis aussi ma jékki-jékki gis kuñ naan Fouta Tampi mu commencé naan Sonko nangam ak nangam gis nga xeetu doomu aadama yu mel ni Fouta Tampi ñun bokk nañ ci xeetu doomu aadama yi nga xam ne ñoo yàq Sénégal te ñun suñu projet ñooñu dañ cee bokk kon bu leen ko jox attention parce que waru leen bett waru leen bett ku taxaw ne Fouta Tampi ba àdduna bi yëpp ne la ne la jàppale nga xëy xëy ne Fouta Weli. say intérêt bu nekkaatee feneen aussi da fay dem kon ñun euh, fut ku maanaam moom mënul yokku dara ci combat bi wala mu ajouté ci dara quoi te aussi ñun nekkuñ di commandé ay nit nekkuñ aussi di ut raison ñun xam nañu on a raison xam nañu ñoo am dëgg xam ñu ñoo nekk ci dëgg kon ñoo ñu jaruñoo jox importance parce que xeetu nit yu mel ni moom ñun moom la ñuy xeex parce que Sénégal mérité wul doomu adama yu mel ni moom mooy bu la tayee nga verte bu subaa nga ñuul am na benn waaye bu ko wax mu ne ma Kona est-ce que xam nga lan moo tax kàkkatar génnatul est-ce que gën ngaa gis kàkkatar ma ne ko luy kàkkatar mooy kàkkatar mooy changer couleur feneen kàkkatar la mooy changer couleur ji koy kàkkatar mu ne ma téere mu ne ma tëratul muy génn ma ne ko lu tax mu ne ma parce que nit ñi dañoo jël jikkoom moom da doon ñëw di génn ay jikko di di mel di soppeeku des fois mu xonk des fois mu rouge des fois mu bleu mu jommal nit ñi mais ay nit ñëw yor jikkoy ba romb ko tey ñu zone suba ñu ñuul gannaaw suba ñu moof mais moom jaratul muy génn ma ne ko mais pourtant nga dëgg mu ne doomu aadama yi léegi ñoo ko àbb jikkoom doomu aadama yi ñoo dàq soppeeku moo tax képp ku ñu gis muy xeex jàpp nañ ñi yow ak ñoom ñoo yem des fois sax nga dégg ku naan la yow mi yéen ñii kat gëmu leen Sonko bës ngeen ut ci moom te pourtant bi ngay xeex xamuloo Sonko bi ngay xeex dëgg xamuloo Sonko mais bu ko déglu bi ngay xeex injustice xamuloo Sonko wala boog da bëgg bu faloo des fois sax ma dégg nit commentaire ko wax ma ko man ay da ngeen bëgg bu faloo ah, ngeen am ci poste yi ngeen ngeen mu fal leen moo tax ngeen koy supporter moo tax ngeen koy xeexal te dama koy wax chaque jour ñun bu fekkoon ni tey intérêt personnel moo tax ñuy xeex tey jii ñu ngi ci nguur gi parce que wax naa leen suma jaar-jaar waxtaaneel opportunité ma am ci nguur te am na ñeneen ñu am lu mel noonu Sonko ragal du ko bëgg naa naafeq du ko bëgg te bu dee nguur rek nga soxla nguuru Macky Sall gi moo gën a neex a bokk Koura Macky député la kan mooy Koura Macky bu Koura Macky demee ba nekk député à l'Assemblée nga gis ñoo xam ne tekkiwuñu dara am ay poste de responsabilité ci APR ci ci ci nguur gi kon nga xam ni ku bëgg nguur rek du ànd ak Sonko parce que Sonko li muy woote mooy lu ñëpp bokk ñëpp yem ci kepp te sonko limi wote moy rupture limi wote du pacho kon nga xamni sonko wote wul pacho nga gis ay nit diko ko nga ni dang leena xass a xas naan dañoo bëgg bu fóot sonko falo fal leen motax tax xexal kon bala jang ñu dem andam ak Macky Sall mi falu ba pare mu fal leen wala ñu xey suba di saaga sonko legi ñu fal leen wala ñu nekk millionnaire kon yoyu wax di décourager lo nit wala diko ko commentaire pour bëgg ko bëgg ko roubé yoyu neena naa leen suñu bop yi du susu nangu ba lo ci ci mu sax ñun dañoo amone ay poste ci nguur gi am ay privilège ci nguur gi am ay contrat ci nguur gi xeex lii moo tax ñu ñàkk ko kon ñun amuñu problème mu privilège injustice la ñuy xeex depuis bas âge ba ci làmb ji ñu nekkoon a fépp kon nañu gën a taxawaat gën a gëmaat bañ a déglu kenn ci li ñu gëm parce que gars yi tous les moyens la ñuy infiltrer pour di la dugalal suspicion ci sa bopp des fois ñu ne lu Sonko du bokk da ngeen di seen bopp sonk du bokk man xam la laa doon bañ ku ma ko wax Sonko du gañe loolu moo ma doon rusloo da ngeen sóob moomoo leen Sénégal Sonko du gañe ndax ëpp fi nit ëpp fi électoral man loolu moom ma doon rusloo mais Sonko du bokk lan moo tax nga ni du bokk Sonko du bokk duñ lax Sonko du gañe de du bokk <laughs> Sonko du bokk da ngeen di sa bopp waaye du bokk pourquoi du bokk jaay ko doole ba du bokk. man li ma doon metti mooy Sonko du gagné te boo ma nee du bokk yi doo indil ci texte wala ci loi wala luy firndeel ni du bokk du bokk parce que bu bokkee dafay jël nguur gi te buggu leen mu jël nguur gi dangeen ngeen a soxor wala da ngeen a sàcc alalu réew mi moo tax ngeen naan du bokk wala ngeen ànd ak ñiy sàcc alalu réew mi ñu leen ciy mosal ñun nag on a préféré tourner tourner la dos à ça dëgg mal dëgg ñu ñu koy xañ suñu biir dëkk mu jaral ñu génn exilé continuer di wax dëgg ki ñu gëm parce que kenn duñu ngalaab kon fii lañ nekk fii laa bëgg patriote yëpp nekk fa parce que gars yi dañoo yor ay affaire yu sew di la ko sànni soo oyofee bopp rek ñu këf la ngay diminuer wala ngay jéem a rasu wala nga naan damay jéem a euh, généraliser déedéet focusal ma ñëw nag ci dégg bi ma dégg ni Adji Sarr da doon waaj a xaru gars yi nag damay dégg ñu naan ku wax sax des fois ci ay Adji Sarr ñu naan la ay focus ak yooyu ci focus bi la bokk parce que Adji Sarr lépp lu ñu dal moom moom mooy la mère de des problèmes maanaam moom moo sabab lépp te aussi dafa te acteur actrice principale ci li ñu nekkee kon dafay baax lépp lu génn ci moom ñu évaluer man patriote yi laay waxal waxuma ci Adji Sarr gis nga Sénégal Adji Sarr buñ ne leen day xaru am na lu ñuy waajal ci kawam parce que Adji Sarr du nit kuy xaru man gëwuma ni Adji Sarr dafa bëgg xaru uh-uh. peut-être dañ ko bëgg ray di anticiper xelu sénégalais yi pour suñ ko rayé ne do doon xaru parce que né nañ dafa bëggoon xaru ci sama xalaat bu gàtt man dama jàpp ni message boobu dañ koo génnee pour buñ ko reyee parce que aji Sarr li mu yenoo mag sax bu ko yenoo li mu xamal état mag sax bu ko ko état fii day nekk en danger waxuma la nag muy gone gu ndaw kon aji Sarr képp ku la ne bakkanam nekkul ci xottu gerte xamul luy état parce que li mu xamal état moo bari bu waxee waxam li mu mën a def dans le présent au si présent bi ñu nekk ak ci ëllëgu ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko def loo loolu kon suñu jékki-jékki rek bëgg a dugal sa bopp da doon jéem a xaru xaar leen suba ñu rey ko ne dafa xaru parce que dundam amalatul kenn njariñ dundam danger la pour ñi nga xam ne ñoo nekk ci complot bi kon xaar leen lépp xëy suuba ñu ne la Adji Sarr dee na ñu naan dafa xam xaar leen loolu parce que ce régime là est capable de tout léegi nag taxawaay bi nga xamante ni tey moom la ñu war a am ci bu ñu déggee ab xibaar bu jugee ci ñooñu mooy analyser ko alerte ci patriotes yi après ñu avancer parce que li ñuy wax lépp luy wàcc ci actualité ci penc mi rek am analyse buñ ci war a pour patriote yi am ci gis-gis après on avance kon gars yi fii la ñu nekk ngeen gën taxaw am gëm-gëm gën am fulla bañ a déglu kenn kenn kenn kuy taxaw di jéem a dugal ci sa biir bopp suspicion wala di dugal sa biir bopp ci projet bi nga nekk nañu taxaw tem ba am di combat bi ñu am ñu ñu gañe ko ci anam bu gën a rafet parce que instant bi loolu rek mooy taxawaay bi ndax dëgg bu duggee bureau te wa génn mag lanu yey waaw Sénégal dëgg bu jubee ci penc ni du ko wër mënuñu cee teg bët boroom daraja moo juum te Macky Sall lim nekkee ci réew mi yëpp ñëpp xam nañ ni du dëgg du yoon kon buñ ci noppee rek am na lu tax ñu nopp ci léegi nag doo ci noppi ba pare na ci ñëpp noppi li ngeen nekkee ci réew mi daas kay wax ndax ku ko def ku ko wax lay wër kon ngeen gën a taxaw gën a dëggu gën a gëm seen bopp bañ a déglu kenn bañ déglu kenn ci li ñu nekk di xeex ndax booy xeex dëgg noo def ay déco lay découragé noo def ñu jël ay message di ko teg ci sa der dinañ yàq sa der waaye ku xool ci Ousmane Sonko képp bu ñu yàqee sa der nga war kaa muñ képp ku xool ci Ousmane Sonko bu ñu yàq bu ñu la tuumaalee nga war koo muñ parce que gor la garmi la te chaque jour ñu yëkkati ku tekkiwul dara yëkkati ay kàddu yu bon yu salte te ko ci koom te teewu ko dund teewu ko avancé kon ñun ak keneen ku mu mën a doon ci patriote yi na ngeen gën a gëm gën a focus seen bopp yi bañ a nekk suuf su nangu ba loo ci jimu sax wow koŋ ba atteindre suñu objectif parce que nak lool rek la loolu kase mom moy combat bi kon gaay li mo nekkoon waxtan bi gëna ñaaxat patriote yi gën leena focus lo ñu xamné étape bu ñu tegu rek étape bu am importance lo ci par rapport ak fañ jëm gën a abonné gën a partagé jaa ngeen jëf